mu ngi ñaan sunu borom mu jéggal ñu dog-dog yooyu di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoom lañ toogal fii ci kaw ndeyjoor ak càmmoñ nga xam ne ku xam liggéey bii di liggéeyub islaam fii ci réew mii ci gox bi xam ne ñu ci bay seen waar lañ guddi ak bëccëg noo ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala yal na ko yàlla barkeel nangu ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi Cheikh Abdallah li mu ubbee léegi léegi mooy ghazwul fikri te mooy agression culturelle waxtu yu ndaw yiñ fiy def ci kattanu borom bi loolu lañ bëgg a fàttante ak yéen ci ay tomb yu ndaw baatu ghazwu ci arab ci français muy agression ñun ñëpp xam nañ li muy tekki pour ñu mën ko dégg rek ci olof léeg-léeg nga dégg ku ne dañoo agressé diw tey ci réew mi nu nekk képp ku dégg dañoo agressé papaam nekkul woon ak moom wala dañoo agressé yaayam wala nekkul woon ak moom wala benn mbokkam wala doomam fi mu toog balaa muy gis kooku lu muy xalaat mooy kooku moom gaañ nañ ko wala rey nañ kon baatu agressé ñun miin nañ ko léegi ba nga xam ne kenn duñu wax lu muy tekki léegi nag mu des fikri wala saqaaf yi bu njëkk ba noonu yàlla yi bu ñuy ñëw cib dëkk avion yi dañuy nekk ci kaw di sànni ay bomb bateau yi nekk ci biir géej gi di sànni bomb seeni soldaar nekk ci suuf di raam di setal ba ñu demee loolu ay at ñu gis ne ndeke jullit yi ay bomb ak ay kënu karwaas ak kaso mënalu leen dara bal day tax ñu gën a dëgër ñu daal di changé doxalin wi ñu ne léegi nañ leen xeex xeexu xalaat nañ leen xeex xeexu culture mooy lan ñetti mbir lañ ci tëral mooy nanu fexe ba def jullit bi nasaraan suñ ko mënul def nasaraan ñu def ko yahud suñ ko mënul def yahud ñu génne ko ci l'islam waaw loolu mooy agression culturelle mooy jullit bi nañ ko génne ci l'islam wala ñu def ko nasaraan wala ñu def ko yahud li am solo daal mooy bu ñu bàyyi jullit mu dee nekk jullit xam ngeen yàlla dafa ne jullit bul dee lu dul jullit nga wala tamutunna illa wa antum muslimun bu leen dee dajeeg yàlla lu dul ay jullit ngeen léegi nag ñoom ñu ne na ngeen fexe ba jullit bi dem ci yàlla bu mu nekk jullit loolu nu ngeen koy defee génne leen ko ci lislaam suñ ko ci génnee fu ñu koy dugal ñu ne ci nasaraan suñ ko mënul ngeen dugal ko ci yahud suñ ko mënul ngeen génne ko ci islaam mu nekk ci mbedd mi di tamba mbaalu ba dee dajeeg boromam mu yóbbu ko safara ndax loolu lu bees la déedéet lu tax du lu bees alxuraan moo ñu ko wax wala yazaaluuna yuqaatiluunakum hatta yarudduukum an diinikum in istataau yàlla nee na duñu deñ di leen xeex baat boobu ci arab yàlla tàmbalee aaya bi muy xarful istimrar wala yazaaluuna duñu deñ kañ lañ koy bàyyi bu ngeen bàyyee nekk jullit rek ñoom ñu daal di arrêté xeex bi kon loolu moom mooy agression baatu culture wala al fikri mooy xeet woo dem am nañ culture xeet woo dem ci àdduna am nañu aw dundin wu nu fekk seeni maam nekk ci di dundoo noonu ñu koy dundee di ko solo di ko waxee di ko lekkee di ko liggéeyee di ko defee lépp ci seen dund dundin woowu nag l'islam bi mu ñëwee dafa cuub jullit yi aw dundin woowu yàlla di wax ne sibgat allah wa man ahsan min allahi sibga cuubug yàlla cuub googu yàlla cuub jullit yi nga xam ne daf leen def ay jullit ba tey jii jullit bu jigéen bu génnee jaar ci mbedd mi ñu xam ne kii jullit bu jigéen la kenn du ko jaawale donte ne mi ngi wàññeeku na ngeen fexe yooyu yëpp dañ ngeen fexe ba julit ñi ngeen génne leen ci li yàlla bëgg ngeen indi leen ci li yahudi ak nasaraan yi bëgg mbokk yi loolu nag ay effort yu rëy la ci noonu yàlla yi def razul fikri yi suñ koy tënk ci firi bu leer bu ngeen gën a mën a dégg mu ne ay effort la yoo xam ne benn xeet daf koy def pour noot beneen xeex beneen xeet ay coono la yu benn xeet di def ñëw jóge dëkkam ñëw ci beneen dëkk comme tey France ni mu jógee France ñëw Sénégal noot waa Sénégal fexe ba soppi ba soppi leen fexe ba waa Sénégal jàng làkk tubaab bi France fexe ba jullit yi bàyyi seen col di sol sol col tubaab bi fexe ba jullit ñi lépp loo xam ne tubaab yooyu ñu ngi koy def moo leen gënal ñooñu lu seen diine wax léeg-léeg nga dégg ab maire bu ne sama doom ji tubaab la waaw sama doom ji de léegi tubaab la ñaata yoon ngay dégg loolu loolu mooy coono yoo xam ne benn xeet def na ko ñëw noot beneen xeet ba jeexital ci moom daal di koy orienté orientation moom ya mu bëgg nga xam ne ñoom même buñ fi nekkut seeni nit a ngi fi di leen doxalil seeni bëgg-bëgg loolu pour ngeen xam agression culturelle moom ci gàtt lool la loolu nag mbokk yi lu doy waar la gis nga xeet woo xam ne yaa fuus nañ ba beneen xeet ñëw dugg seen biir moom leen noot leen di leen waxloo di leen defloo di leen jëfloo pour ñu dindi ko ci ñoom day metti te li ci doy waar mooy xeet woowu dañuy dem ba ñooñu lañ leen indil moo leen di gënal ak ñoom la ñu nekkoon pour nga raxas loolu seen bopp yi sax pour mu denc problème lay doon comme tey rek ni ngeen ko gisee. saa yoo xamante ne ab xeet mokk nañ ca ñaleen noot la ñu bëgg ñu koy dund di ko jëfee xeet woowu pour nga conscientiser leen day metti trop xeet woowu feebar boobu bu saxee ci ñoom pour ñu faj ko dafay doy waar waaye mbokk yi loolu nag yahud yi ak nasaraan yi pexe la yoo xam ne ñoom ñoo ko tëral boole kook ay moyen ak ay jumtukaay ak ay pexe pour seeni bëgg-bëgg mën a nekk tënk nañ fukki tomb yoo xam ne xam naa ne bu ci kàttanu yàlla du doy waaye lenn ci luñ ci mën a jot dañuy fexe ñu góorgóorlu mbokk yi ba loolu di agré agression culturelle ñu jëm koo génn ci suñu bopp génn ko ci suñu xel yi fekk nanguwuñ ñu ne réew mi di Sénégal dañ ko agressé te agression boobu sax na fi ñu ngi koy dund ay siècle fekk nanguwuñu loolu du ñu wér ay jumtukaay yu bare bari ay wasaa'il la ay jumtukaay yoo xam ne xarb muy Occident jëfandikoo nañ ko ba noote ko jullit yi yooyu yu ci njëkk mooy muhaawalatul istisla ala al uqul abnaul muslimin xeex bi bi ci njëkk mooy biñ ñu xeex gañe ñu ko mooy dañoo fexe ba dugg ci sunu xel yi daal di nangu xelu doomi jullit yi ba fexe seeni xel la ca nekkoon ci ay compréhension yoo xam ne islam la raxas nañ ko ba mu set fexe ba pas-pas ya ca nekkoon ñu dindi ko kon gis nga dóoruñu bal taaluñu kënu waaye lan la ñuy def dañoo fexe ba ñëw raxas sunu xel yi ba tey bu ñuy xalaat dañuy xalaat ni tubaab bi bëggee bu ñuy lekk dañuy xool tubaab bi lam doon lekk ñu ne moom la ñuy lekk suñuy solu dañu naan tubaab bi ni mu doon soloo ñu soloo noonu loolu fan lañ ko jaare ci xelu doomu jullit yi lañ dugg xel moomu it xel moomu it ñëwuñu rek raxas xel mi waaye déedéet dafa am fuñ jaar ba raxas xel yooyu te tomb boobu dina ñëw kon nañu yëg ne agression culturelle fi mu gën a mën a jaare mooy ci xelu doomu aadama yi mooy jullit suñu dindee sa xel li ci yàlla waxoon ñu dindi sa xel li ci yonent waxoon lan moo fa des mooy moo tax tey da ngay dégg ci télé bi ku ne nañ def lii ndax loolu la yàlla wax nga dégg benn waaye dagge fële ne loolu kenn du ko fi defee parce que nangam ak nangam di ko er- di ko argumenté loolu lu ko waral mooy xel xelam la ñu raxas la ñu segg ba mu segg ba ñu raxasee xel mi dindi ci li yàlla ak yonent bëgg lan nga dégg waa ji muy wax mooy li yàlla wax du fi am kon na ngeen fexe ngeen moom seeni xel ngeen fexe ba dégg-dégg bi nga xam ne moom la Occident bëgg ñu déggee noonu na ngeen fexe ba yoon woowu Occident tëral ñu jaar fa na ngeen fexe ba seen lépp ba mu nekk fii kulli shay ci lépp lu mën a doon ci ñoom même bu fekkee mbirum pas-pas la mbirum diine la nañu fexe diine ji ñu teg ko fële ca côté ñu daal di topp li tubaab yi bëgg ñu topp li yahudi yi bëgg ak nasaraan yi moo tax tey ñoo ngi ci weer wi di décembre ku dugg biir Dakar di nga gis commencé nañ bareetal yi commencé nañ peinture garab yi commencé nañ takk ay ay ay lampe jeu de lumière ci yenn immeuble yu mag yi ak yenn place publique yi lan la ñuy préparé 24 décembre 24 décembre feetu ñan la yahudi ak nasaraan yi doo wax sax yahudi nasaraan yi ngay wax réew mi ñoo ñoo ko coloniser nasaraan yi xoola 95 pour cent musulman gars yi nee nañ téeméer boo jël ak nangam bu ci tegu téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ya ak juróom ay jullit lañ ñu leen di feetuloo 24 décembre nga xam ne jullit yépp ko gëm même am nañu toog fii laa wax ci tante bi jour 24 décembre dañ naan ñun duñu baali waaye danañ reere ginaar fi mu nekk am na ñoo xam ne poñe nañ seeni jëkkër ba jënd ba pare teg yar nañ ba pare ginaar gi li ko teree dee mooy ñu ne tey la 24 te fii laa wax ci biir baas yi ñu muuru ñuy toog ak borom sikkim yi loolu agression weesuwul loolu guddi googu ñuy 24 guddi googu di 24 décembre lan lañ ci wax lan moo ci xew ba yow ab jullit nga ciy feetu lan moo ci xew loolu ñu ciy wax tey suñ ko waxoon kenn ci ñun fii ci baas bi toog ñi ci kaw ak ñi ci suuf kuñ ko waxoon sa kuñ ko waxoon sa baay doo reere ginaar kenn ci ñun tey buñ ko fekkoon ci biir këram mu toog ñu ne ko sa papa mooy ngénte koñ bële te amu fa jabar doo reere ginaar de loolu lañ wax yàlla wax jooju lañ wax yàlla bu fekkee dégg ngeen sama wax dañ ne yàlla am na doom yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla nee na ci hadisul kursi saaga bi gën a rëy biñ ma saaga mooy saaga boobu chatamani ibnu adam doomu adama saaga na ma te wa maa yambagi lahu an yastumani te yellul ci moom doomu adama mu may saaga man yàlla ñu ne yàlla ban saaga la la doomu aadama saaga yàlla ne doomu aadama nee na man yàlla damaa am doom allahu akbar wa qaalu taxazu rahman walada nee nañ yàlla am na doom mbokk yi jinne yi jinne yi seen bopp ba nu déggee ñu ne yàlla am na doom jinne yi laa wax de waxuma nit yi dañoo yuuxu ba seen gémmiñ yi di waaj a génne étincelle ñoom jinne yi naan wa annahu taala jaddu rabbina mattaxaza saahibatan wala walada waay waay kawe na waay baat boobu lañ utiliser wa annahu taala kawe na màgg na jaddu rabbina sunu màggaayu borom waay waay moom sunu borom moomu mattaxaza saahiba wala walada musta am soxna dendandoo wala am doom jinne yi de ñoom de weddi nañ ko yàlla mu ne asamaan ba mu déggee ñu ne yàlla am na doom daf ko weddi yakaadu samawaat yatafattarna asamaan a ngi xotteek ñu ne ko suuf nag mu ne watan saqul ard suuf di xar ñu ne ko montagne yi nag mu ne wata xirul jibaal montagne yi daanu ñu ne yàlla lu ko waral lan moo tax asamaan di xotteeku lan moo tax suuf di xar lan moo tax montagne di màbb lenn kese la an daaw lirrahmani walada nee nañ yàlla dafa am doom te wa ma yambagi lirrahmani an yattaxisa walada in kullu man fi samawati wal ardi illa aati rrahmani abda borom bi nee na sell ñeel na ma man yàlla jomb naa am doom kon léegi nag réew mu mel nii réew moo xam ne dañuy tiitaroo Cheikh Ahmad Bamba Alhaji Malick Ibrahim Niass ay kilifa yu dul jeex réew moomu di feetu 24 décembre xam ngeen ne agression culturelle moo ko waral agression boo xam ne dem na ba sax ci sunuy xol feebar bi gañe nañu ba ñu ne léegi dootuñu wér léeg-léeg nit nga dégg nit feebar nga seeti ko nga ñëw ñu ne la naka malade bi nga ne ah moom daal xam naa ne ah feebar na de keneen ki ñëw ñu ne ko naka malade bi mu ne feema ko gis kay mu tëdd yàllaa ci des mooy kooku moom day dee ak feebar bi du wér moom moonu dal nag ci waxtaan bii nuy waxtaanee muy agression culturelle Sénégal agresse dañ leen a agressé seen diine seen pas-pas seen lépp ba tey jullit yaa ngi nii da ngaa nekk ci biir Sénégal doo gis l'islam ci biir Sénégal laa wax nga nekk quatre-vingt-quinze pour cent musulman bi nga dégg doo gis l'islam nekkul fenn lu dul wax soo demee ci ngénte yi doo ko gis soo demee ci ceet yi doo ko gis yenn saa yi sax nga dem ci dëj yi wala yenn jàkka yi doo gis islam fan la ñu jëm mooy li ñu wax léegi rek ne xel yi la tubaab yi soppi xel yi fexe ba ñu daan ñuy noot ci lépp fi kulli shay ci lépp lu mën a doon tey ndeysaan ay victime lañ ci rawatina nag ci sunu diine ci sunu lépp ci sunu lépp loolu mbokk yi foog ñu delluwaat ginnaaw bu baax xam ne xeex bi mënuñu nekk ay jullit lu dul dañ cey génn feek ñoo ngi mel nii mooy dañuy sori yàlla dañuy sori diine dañuy sori yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu dem na ba nga xam ne waxuma la seeni làkk waaye dafa dugg léegi ci sunuy jikko dafa dugg ci sunuy aada xeex bi dafa dem léegi ba dugg ci sunuy jikko tey booy xool nit ñi seeni jikko feebar bi ngay dégg ci Sénégal tey ñuy wax nit ñi di ko wax ci oto yi di ko wax fu nekk rajo yi télé yi lan la jikko yee yàqu jikko yee yàqu jikko yee yàqu lan moo yàq jikko yi mooy programme bi ñu indil moo baaxul nit ñu tëralal moo baaxul mooy xeex bi moo gis nga feebar bu yàggee ci yaram bu yàggee yàgg yàgg yàgg yàgg bu yàggee da ngay gis muy manifesté wu ci cër yi day jàpp xol bi wala mu jàpp rein yi wala mu jàpp xëtër yi wala mu jàpp bët yi wala mu jàpp loolu tey mooy li nu dal mooy agression bi bi mu fi yàggee tubaab bi indi ay karwaasam ak ay kënoom xeex ak sunuy maam ñi mu mën a jàpp mu jàpp ñi mu mën a rey mu rey mu des ñeneen ñi tubaab bi sampal leen ay pexe ñu koy dund di ko dund ba loolu tax moo moo ñu jàpp nii ñu mel nii nga gis ab jullit bu jigéen wala nga gis jullit bu góor muy solu waaye day solo ni ab yahud di solo nga gis jullit bu jigéen muy solu waaye da koy def modd modd la koy def modd ñun liñ jàngoon ci fiq sëriñ saa ngi nii ci baas bi toog sama sama wet su ma juumee ñu gàgganti ma liñ jàngoon ci fiq ci téere boobu tudd al axdari yi mooy al maratu kulluha awra ma adal waj ah wal kaf jigéen léppam awra la ba mu des ay ténkam nga gis ku muuru paccal ku muuru dangal aman di loolu moo ma jaaxal loolu de man lu ma jaaxal la man man dama yaakaaran ne muuraay te kooku def loolu kat soo dajaleeg moom waa ne ko asta mu ne damay sellal de gis nga ma temps yi damay sellal loolu kay dara sellu fi nga gis xale bu góor boo xam ne ci jàkkale nekk mu ngi sujjóot Oustaz nee na njiit laay bi Oustaz rafetal na ko waaye dama bëggoon jaar ci digg bi mu Oustaz rafetal na ko barki démb laay woon xale yi ci Facebook bi benn waaye ndeysaan mu ngi toog ak benn xale bu jigéen nag di incarné nag di jaay tubéy jaa ngi wàcc waaye la mu jiital mu ngi amay bën bën ndeysaan mi ngi jaay maanaa boo xam ne nag waaw mais xoolal ca jamono démb laa wax loolu ñuy jiital même yow ci sa wanag soo simmeeku woon ba sangu ba pare même boo ko fóotee doo ko weer ci ligne bi bu dee bu góor ak bu jigéen yépp nag ndax lan ndax kersak sutura tey moom la ñuy génne ci jàkka yi moom la ñuy génne la wax ci jàkka yi loolu moo lay wan ne diine dem na diine dem na waaye loolu lu ko waral mooy li ñu wax léegi léegi ci tomb bu njëkk bi mooy xel yi la ñu raxas mbokk yi sunu xel yi la ñu yóbbu kon bu fekkente ne dañoo bëgg foofu loolu wér ah foog ñu delluwaat defaraat xel yi ba xel yi baax jikko yi yàqu nañ te xam ngeen ne islam moo doon jikko sallallahu alayhi wa sallam bañ koy yónnee lu mu wax innama bu istu li utammima makaarimal axlaaq yàllaa ma yónni pour ma mottali jikko yu rafet yi xoola aada yi léegi aada yu bon rek la ñuy dundal même aada yi duñu wax ne yëpp a bon am na yu baax waaye même foofu ñu topp aada tubaab yi topp jikko tubaab yi topp seen diine moo nu gënal lu yàllaa ko yonente wax ñaata yoon ngay fekk ab parent kilifa borom kër bu am doom ne day defal doomam anniversaire ñaata anniversaire fan lañ ko jëlee robe de mariage fan lañ ko jëlee ah lii xew léegi nga gis ku am mariage ngoon dem salon solu ji hatta ñun ñii dem salon nekk fa ba minuit ba gan yi ñibbi ndeysaan ñi la bëggoon gis duñ la gis fan lañ ko jëlee ñëw sol ngandim robe muy direeku fuñ ko jëlee kon lu bare bari sax ci suñu wàllu diine dañuy wax ne diine la fekk tubaab yi lañ topp mbokki jullit yi ñaareelu tomb bi mooy riaya li taifa kabira min abnai almuslimin fi kulli balad wa inayatihi bihim wa tarbiyatihim na ngeen fexe ngeen détourné ci doomu jullit yi lu bare bare bare bare bari ci réew bu nekk ngeen yaral leen seen bopp ba ñuy naanee ni ngeen bëgg ba ñuy soloo ni ngeen bëgg ngeen yóbbu leen sax seen réew yi yéen yóbbu leen France wala ñu yóbbu leen Amérique wala ñu yóbbu leen ngeen jàngal leen fa yar leen ba même bu ñu dellu soo ci seen dëkk ñoom la ñu jàngi woon la ñuy indiwaat ñaata daje naag benn xale bu jigéen Imam Malik xale bu jigéen bi may waxtaan ak moom ci muuraay gu mu doon muuru di génne nopp yi amira ne ma gis nga kii papaam ustaas la waaye da kaa yóbbu école catholique yi lay jànge te xam ngeen école catholique yi dañu ne ku muuru du fa jàngee ñu ne saakam day def muuraay bi ba ci buntu école bi dindi ko dugal ci saak bi def bopp neen dugg jàng bu génnee waat ci muuraay di dem ñibbi li ma ci metti nag mooy amira moo ma ko doon wax xoolal agression bu garaaw boobu ci doomu jullit waxuma la doomu ustaas kon ñeneen seen doom yi nu ñu war a mel ah tey doomu sëriñ si ngay fekk ñooy nekk ay rappeur ñooy nekk ay musicien ñooy fees grand théâtre loolu fan lañ jëm mbokk jullit yi fan lañ jëm lan moo waral loolu loolu war nañ ko jàngal war nañ ko xool lan moo tax nitu diine yi seen doom yi ñoo gën a doy waar lu tax mooy agression la wax naa leen sànq mooy yar bu ñu leen yar ak jàngal bu ñu leen jàngal tubaab yi arab yi nee nañ man imtalaka al madrasa imtalak kullu shay ku moom école yaa moom lépp ki détient l'école détient tout xale yu ndaw yaa ngi nii suñ leen joxoon léegi yahudi ak nasaraan yi ñu yar leen buñ taxawee fii ngeen rus waaye buñ leen bàyyee jullit ñu yar leen jullit yar leen fu ñu dem ñëpp kontaan c'est parce que jullit moo leen yar kon foog ñu góorgóorlu mooy tandiku lu bare bari ci sunu doom yi nga xam ne dañ leen di yónni ñu dem jàngi est ce que fa ñuy jàngi luñ fay jàng diine est ce que fan lañ fa ñuy dem di jàngi orientation yu baax lañ leen di defal parce que ñaareel tomb bi mooy loolu na ngeen fexe ngeen jël doomu jullit yu bare bari ngeen yóbbu leen jàngal leen former leen ba bu ñu delsee ñooy nekk ay pion yoo xam ne yéen la ngeen bëggoon ñoom ñoo koy def mbokki jullit yi dañu bàyyi xel loolu bu baax ñetteelu tomb mooy na ngeen fexe ngeen jàngal leen seen làkk waaw na ngeen fexe ngeen jàngal leen seeni làkk nañu ko gëm na ngeen fexe làkk bi moo leen di gënal ñoom seen làkk yi ñu nàmp ci seeni maam nañu dem sax ba nga xam ne làkk bi moo leen di gënal làkk arab te xam ngeen ne ñu bëree bëri ndeysaan ci Sénégal ngay gis waa ji naan arab yi arab yi arab yi arab yi arab yi ñi arab yi lañ topp da nga ciy xuloo bu dégg bëccëg ab jullit bu toppul arab ku muy topp jullit jullit su toppul arab kan lay topp Seydina Muhammad mbokk yi lan la olof la du ngeen mën a séeréer la de Abdallah li ngeen koy bëgg bëgg na du ngeen ne séeréer la ah kon lan la ab arab la alquran làkku lan la làkku arab jullit war a dund diine kon fokk mu jàng arab pour mu xam alquran pour mu xam sayduna muhammad soo jàngul arab rek muhammad réer la soo jàngul alquran soo jàngul arab alquran réer la kon ndeke nañu def attention bu baax ñi naan ñu da ngeen di wax bu kenn jàng leen ba pare ngeen bëgg a jàngal nit ñi arab ah kay arab foog ñu jàng ko fal force bu fekkee ay jullit lañ ndax kenn du taxaw ci jàkka ñu fal la ñu ne yaay imaam bi nga naan allah ko mawdo loolu mënul nekk allahu akbar rek ngay wax waaye yàlla ku màgg la daal di xabdu maa ngi tàmbalee ci tur yàlla moom mi tas yërmande ci àdduna di yërëm julli ñi àllaaxira ñu ne la sawaay kaay fii kon foog nu jàng arab waaye pexe yahudi ak nasaraan yi ak seeni mbokk ak ñu mel ni ñoom ñooy ñëw ci dëkk bi naan da ngeen a bëgg a def nit ñi ay arab loolu ngeen bëgg a def nit ñi ay arab ñun du ñu ay arab xale yu jigéen yaa ngi nii da ngay gis xale bu jigéen bu muur ay waa këram naan ko yéen du ngeen ay arab waay du ñu ay arab waaye ay jullit lañu yàlla moo ñu royloo arab ba moo nañu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kon bàyyi leen ci xel bu baax ñun jànguñu arab pour bëgg a nekk ay arab dañuy jàng arab pour mën a jàng alquran ndax alquran mooy téere bi nga xam ne jàng ko jaamu yàlla la alquran téere bi jàng ko jaamu yàlla la ndax moom la ñuy jaamoo yàlla waaye gis ngeen pour nit ñi bañ a jàng téere bi sax gis ngeen lañ ci tëral ci ay yoon xam ngeen colonialiste yi bi ñu duggee Sénégal li njëkk a def mooy lakk daara yi interdit xale yi ñu jàngi alquran ba ñu ne sëriñ daara buy ubbi daara na nga dem ñaan autorisation daa di tabax ay jardin d'enfants tabax ay école primaire ak ay sayam jëm lycée ba université commencé jàngal nit ñi jàngale boobu ñu leen jàngal bokk na ci li tasaare xeex bi ñu bëggoon xeex diine ndax ña ñu jàngal yépp kenn jàngalu leen diine moo tax ña ci jàng école mbokk yi tourné waat nekk ay jullit dañoo rëcc dañoo rëcc waaye programme bi ñu leen tëraloon ba fi muy jeexee suñ ko suivroon bu ñu dee rek safara lañ jëm direct waaye nag yàlla subhanahu wa taala léeg-léeg doomu aadama tëral ay pexeem mais yàlla mooy sottil léeg-léeg doomu aadama gas ay kambam waaye yàlla moo ko ciy dugal ku ko neex léeg-léeg sax moom mi ko gas mu dugg ci ndax mbir mi mbirum yàlla kon bàyyi leen xel bu baax a baax ci tomb yi ñuy wax ngeen takk ko pour ngeen xam xeex yi fan la ñu jaar ba xeex yi mën a tasaaroo mooy lan na ngeen fexe ngeen ubbi ay école ci réewi jullit yi ngeen jàngal seeni doom yi doomi jullit yi seeni làkk yéen colonialiste yi ngeen fexe ba buñ jàng alquran ngeen fexe ba téere yàlla bi jullit ñi nañ ko sori waa ji doon na wax ne ñaar su ngeen ko génnee ci dënn jullit ñi ngeen gañe xeex bi bu ngeen bàyyi bu ngeen fexe ba jullit ñi bàyyi màkka ngeen fexe ba jullit ñi bàyyi alquran gañe ngeen lu tax ndax xam ngeen ne alquran moom mooy balluwaayu force jullit moo tax ci seen congrès bu ñu defoon ca Angleterre ñuy xool naka la ñuy def ba génn alquran ci dënn jullit ñi am na ci benn waay boo xam ne dafa jël kaamil bi rek daal di xotti lan la ko ki jiite woon congrès bi wax yow membre bu dof nga mu ne ko yéen yéen a wax ne alquran buñ ko xottee ci dënn jullit ñi gañe nañ moo tax ma xotti kaamil bi mu ne ko xanaa xamoo ne jullit ñi ay dañoo naan kaamil bi di ko doxantoo li ñu bëgg mooy ngeen xotti ko ci seen dënn yi mooy buñ ko jàngati ci lañ génne ay loi di yóbbu xale yu ndaw yi école fexe ba jullit bi dootul jàng alquran beneen tomb bi ci des mooy ñeenteel bi na ngeen defal ay jàngukaay yoo xamante ne lan fay jàng mooy bible bi na ngeen defal ay jardin yoo xam ne xale yu ndaw yi ca commencement la ñuy commencé nampatal lii di suñu culture ñun waa Europe na ngeen defar ay hôpital yoo xam ne da ngeen leen ci faj na ngeen defal ay place yoo xamante ne ñoom dañ koy bëgg ci seeni xol di fa jëm ndax am noflaay su ngeen defee loolu dana nekk benn ci luy tax ngeen gagné terrain bi mbokk yi ñu commencé gis ngeen case de tout petit yi ci la bokk fexe ba jël école yi ngeen gi sœurs yi di def ci la bokk centre de santé yi ñuy ubbi ci la bokk dem naa fi rek sooywul dara Kër Mousso ñu fekk àll boo xam ne ne toll na ne fii ba géejawaay lépp ñoom ñoo ko moom ñu def fa benn hôpital boo xam ne ndeke fa la ñuy murtatloo ay jullit yu bëree bëri ci biir réew mi loolu ñun ñu xamuñu ko jullit yu bëri ñu ngi leen di murtatloo laa wax fii ci Kër Mousso ngeen génn ci lislaam lu tax ñun dem nañ fi Sédhiou kese fekk fa benn jigéen boo xam ne dafa murtat biñ ñëwee ñu ne ñu dem leen kër gi ngeen ziyaare ji ndaw si ngeen waxtaan ak moom ndax dafa murtat fan yi ñu ñëw nuyu ko mu laal ñu basang ñu toog ñu ne ko ñun Dakar lañ jógee say mbokk jullit lañ yi fi ñëw pour waxtaan ak yow ndax sa dëkkandoo yi dañ ñu ne da ngaa génn si lislaam da nga koo bàyyi mu ne waaw waaw ñu ne ko lu ko waral mu ne damaa feebar fii ñaari at kenn xooluma labbe bi ñëw faj ma ma dem ma xam ne moom moo nekk ci dëgg ma dem wuy jikko tout court loolu la ñu wax am na Kër Massar kii nee na am na Kër Massar kon gis ngeen keneen ki moom lu ko ci dugal mooy waa Caritas la topp bu ñu indee dund bi këram lañ koy wàcce te jullit la de moom moo naan leen jox leen diw jox leen diw jox leen diw jox leen diw mu xëy rek takk croix ñu ne ko lii nag mu ne ah ñii daal ñoo ko yor kon ndeke ñun ñoo toog fii di nelaw waaye gis ngeen àll beeg dëkk bi ñoom dañuy liggéey benn waaye doon na ma wax ne ci ay jamono bi ñuy dem Casamance chaque jour mu ne ma man aéroport laa nekk bés bu nekk dimanche avion bi dina naaw fii Dakar ñu sol ci dund ba mu fees pour waa Caritas pour murtad loolu yi waa Casamance kon nekke mbokk yi bu leen yaakaar ne li ngeen di gis nii rek fii ci kaw lool la non mbir yi xeexu suuf la xeexu suuf dégg naa semaine ba la passé benn jigéen bu ñëw tës di wax ne doomam dañ ko murtatloo nañ ko dimbali pour doom di del siwaat xale bu góor dégg naa ko ci rajo bi ak sama nopp sama doom ay nit gis ngeen tey bu ngeen xoolee ci biir dëkk bi li ngeen gis ay kër yoo xam ne ay nit ñoo ko loué su ngeen demee lu mel ne Dakar fi seen fi cinéma yi nekkoon ñeneen ñoo ko jënd di fa di fa di fa def seen diina julli ñi di leen fekki dégg naa am na benn imam boo xam ne fii ci wetu Kër Massar dañoo murtatloo jabaram imam laa wax dañoo murtatloo jabaram parce que dañuy woote ay faj mooy li ma wax ni ay hôpital ay poste de santé nga dem fa du loolu dañ fay nekk ay mocc lañ fay nekkee ak ay jat fexe ba génne la ci sa diine islam kon li ngeen doon gis démb ngeen yaakaar ne xeex bi bu ndaw la nangam ak nangam la ay bul muuru bul def lii déedéet ëpp na loolu léegi ëpp na loolu li ngeen di gis ni ci biir dëkk bi yàqute gi ak mon gi yëpp ci la bokk c'est parce que lépp lañu autorisé ba ci sax ñiy tudd diine ñiy tuddee diine sama portable bii ma yor fii maa ngi ci yor ay wax yoo xam ne mi ngi ci whatsapp bi ñu bëri ci yéen jot nañ ko wala ci imo yi pour lan pour nit ñuy diingate sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam di yëkkati ay kër tariixa ak sëriñ yi benn waaye nee na ni alxuraan alxuraan ni mu gënee silabeer xoolal muy jël alxuraan di ko tëkkaleeg silabeer maa ngi koy tegal léegi-léegi xale yi alxuraan ni mu gënee silabeer est-ce que ab jullit dina jël alxuraan di ko tëkkaleeg silabeer noonu la ñun téere yi ñuy jàng gëne alxuraan yàlla dafa ne yonent bi tànnal yonent bi fekk ñaari groupe yonent bi fekk benn groupe mu daal di tànn ci biir groupe yi ci yéeféer yi yonent bi daal di tànn ay nit daf leen ay jullit maanaam yonent bi yàlla da koo tànn loo mu ñëw fekk nit ñi ay yéeféer lañ mu tànn daal di génne mu ne ñi ay jullit lañ mu ne ñun nag sunu kilifa gi bi ko yàlla ne tànnal dafa dem ci jullit ñi daal di tànn demul ca yéeféere ca jullit ñi la dem tànn mu ne moo tax ñun nangam lañ ñun duñ ay jullit loolu tey bu fekkee ne loolu lañ gëmloo loolu lañ ñu gëmloo ci sunu biir kër yi looloo fi daw ñeneen ñi lan lañ leen def dañ leen génne ci islam di leen ne kaay leen ñu wan leen yàlla kaay leen ñu wan leen yàlla ñenn ñi ñu leen di gëmloo ne yéen ay yàlla ngeen mooy yàq pas-pas yi jàngal googu ñu leen di jàngal yooyu fu muy mujj mooy mbokk yi xëy bàyyi lislaam taxaw fële su sa papa waxee nga ni ko lan la ñuy jaamu yàlla mu ne waa nga ni ko man yàlla laa wax ji daal di jeex góor ak jigéen mag ak ndaw kon mbokki jullit yi nañu bàyyi xel bu baax a baax mbir yooyu di xew nga xam ne tey daanaka daj na dëkk bi te nit ñi dañuy xëy rek gis ci biir benn koñ ñu ubbi fa dara ñu daal di langar langaree jël seeni doom yóbbu wala fekk xamuñu ne lii dafa ñëw pour tàqale leen ak yàlla ak yonent gis ngeen tey ci ay ni ñu amee doole Sénégal am nañ fi ay école am nañu rajo saa yoo xëyee rajo bi yaa ngi koy yaa ngi koy jàpp ñoo ngi saaga Aboubacar ñoo ngi saaga Omar ñoo ngi saaga Aïcha ak sahaba yi te pourtant lu ci lay waar mooy doo dégg kenn wax waaye yeneen yi moom ñeneen ñi ku wax ci ñoom rek gars yi daal di gaar lay attaqué barki démb gis ngeen li xew alfala léegi-léegi imam abar abakar sall maa ngi tegal ñi tontu bu mu doon tontu mu ne dañ maa tuumaal dañ maa sosal lu ma waxul ndax ñu fi julleewul ñoo fi ñëw ne man maa xutba nangam te xutba wuma loolu ne man maa wax kuy gàmmu yéeféer la mu ne man ak Aboubacar Sall ku ma xam xam nga ne man du ma waxee noonu te wax na dëgg musu ko wax mais ay nit ñooy ñëw di indi ay problème te ñooñu kenn du leen wëri moo tax moo tax nee na wax naa ko commissaire nee naa ko ne xam nga lu lu bees ci réew mi mooy yéen a bërgal nit ñi nit ñi di def lu leen neex kenn du leen wax lu tax ay mbir la yoo xam ne mbokk yi ñoo ngi toog rek waaye olof yi liñ doon wax rek mooy li xew mooy gis ngeen ndox suñ ko gisee muy walangaan di ñëw ku nekk jël saak daa di fatt sa buntu kër daa ne ndox mi di dugg sama kër ndox mi di dem di dem ba fa mu jëm fees après fu mu jëm day tourner day tourner di ñëw gis nga kër yi mu romboon fa lay ñëw dugg mooy loolu laa bëgg a wax foofu mooy li ñu toog ni di seetaan dëkk bi tàkk di yàqu wala rey nit gi rey nit gi foo tourner tey ñu ngi rey ñu ngi jàmm whatsapp yi waa jaa ngi koy wax léegi léegi ci rajo bi bi ñuy ñëw gis ngeen li ci feeñ barki démb rek ak ay kilifa yoo xam ne ay jigéen ak i góor dañuy futteeku dung di ko dugal ci whatsapp bi benn mbokk buy muuru woo ma téléphone ne ma man de whatsapp yi bokk naa ci benn groupe boo xam ne dañ ciy génne ay film porno ma ne ko subhanallah yow ci nga bokk mu ne ma waaw ma ne ko génnal ci nii mu ne non pour defar sa kër quoi pour mën a téye sa jëkkër ma ne lii téyewul jëkkër de téye jëkkër yooyu lañ lay naxee waaw dañ la koy naxee kaa ñu wan la nangam kaa ñu leen di wan nangam di leen def nii fekk dañ leen di génne ci lislaam yow nga def ne war ngaa xool beneen beneen jëmm góor beneen jëmm góor awra góor bu dul sa awra borom kër sa yaramu borom kër moom tamit kazalika ndax loolu war naa mën a nekk ci ñun kon mbokki jullit yi nañu bàyyi xel sunu bopp nañu bàyyi xel sunu diine xam ne ñun ay jullit lañ te yàlla waxoon nañu ne démb xeex bi du dakk wala yazaaluuna la yàlla waxoon kon boobu mooy ñeenteelu tom juróomeel muhawalatu saytara ala al manhaji taalim fi bilaadi lmuslimin na ngeen fexe ba ngeen noot ba ngeen moom éducation nationale loolu kese la na ngeen fexe ba ngeen moom éducation nationale xoolal tey sunu école bi li ñuy jàng yéen a ngi ni toog yéen ñëpp laa ko laaj tey école bi ñuy jàng Sénégal programme bi ñuy jàng jardin d'enfants laa wax ba université lan lay jëriñ ab jullit ndax ab jullit mën na fi jëriñoo dara ci dundam dara ci wàllu adduna doo jëriñu ci wàllu alaxira sa diina doo jëriñu mais programme bu baaxul la jamono yi yiñ toogee Dakar ñàkk ndox ñu ne usine bi moom moo paan kër mas kër ma masaar weer weer benn tiwo paan ci Sénégal ak sunu université bi ñi fi yàgg a jàng ñi fi yàgg a génn amuñu ñoo xam ne mën nañoo réparer usine boobu wala tiwo boobu ñu ne benn tiwo la benn benn machine moo ci paan ba foog ñu jëli waa France kon liñ ñu doon jàngal université lan la semaine bi loolu moo amaat mooy dañ jékki-jékki ndox mi coupé waat loolu tey yàlla tere yàlla tere bu ñu doon guerre ak benn pays day ñëw ba foofu rek daal di fay waddal bomb waa Dakar yëpp dee kenn du naan ndax ndox mi ñuy naan foofu lay jógee mbokk jullit yi ñu góorgóorlu ba nga xam ne njàng am réew ñoo ko yoral seen bopp njàng gis nga histoire du Sénégal dañ ko dëpp soo jàngee taarixu même kilifa diine yi fi nekk nga gis dañ ko dëpp histoire Cheikh Ahmad Bamba histoire El Hadji Omar Fouti histoire El Hadji Maba Diakhou Ba ñooñ ñëpp boo demee ifrancé ànd job da ngay gis ne tubaab bi daf ko dëpp nam ko jàngalee baaxul lu tax parce que ñoom ñoo ñu koy tëralal imagineel ay noon ñëw ne leen yéen li ngeen di jàng na ngeen fexe ngeen moom njàng mi ci bépp dëkk islam nag loolu moo am tey gis nga même kaamil yi ñuy jàng alquran ñu ngi commencé di traduire kaamil yu bees yoo xam ne ndeysaan baat yi la muy tekki ñi koy jàng ci kanam dañuy am problème am na benn kaamil bu ñu génne woon jamono yële bépp aaya buy wax wa qaatilu dañ koo dindi waaw bépp aaya buy jàngale wa qaatilu dañ koo dindi te looloo ngi ñëw moo ngi ñëw ay programme la yoo xam ne ndànk-ndànk génne leen lii def leen lii jàngale leen lii ci université yi bu leen jàngale lii jàngale lii ci école yi bu leen jàngale lii bu yàggee lan la ñuy jàng dara diina ji kenn dootu ci xam dara léppay réer lu tax parce que ci ay loxo la nekk yooyu nañ ci bàyyi xel ba sunuy doom suñ leen di jàngal njul ñu yóbbu leen ci ay nit ñu nga xam ne wóolu nañ leen xam nañ ne ñii duñ yàq sunuy doom ndax ay julit ñooy jàngal sunuy doom te lañ leen di jàngal day nekk dëgg lañ leen di jàngal day nekk diine day nekk pas-pas bu méngoo ak seen diine waaye jàngal doomu jullit bi loo xam ne ëllëg ak sibir sibir bu ko papaam ne jógal julli mu ne ko papa laa ikraha fi diin bàyyi laa ikraha fi diin benn góor loolu la doomam daf ko tàggu dem jàngi jàngi ba ñëwaat ay at mu toog di ko xaar doom ji ñëw tëdd fajar góor gi jóg di dem jàkk gis xale bi yeewul mu fëgg buntu bi abdallah abdallah mu ne um mu ne ko noddu lañ salaatu de mu ne ko papa laa ikraha fi diin papa ji ne ko qu anfusakum wa ahlikum naaran qu anfusakum wa ahlikum naaran kooku kan moo ko jàngal ne booy nelaw kenn waru laa fëgg fajar jógal julli ji dañ ko ko jàngal waaye góor gële moom it tàggat nañ ko ba mu mën a tontu papa kuy nelaw kenn du ko yee mu ne ko yàlla dafa ne nañu fegal suñu bopp safara fegal suñu njaboot te yow ci njaboot gi nga bokk jógal julli waaw loolu la kooku tey buñ ko formé wul woon ba xale bi wax ko loolu day dem yoonam rek ba ko fa waaye góor googu dafa dégg diine tey aaya yooyu lañ lay jël di la ko waxal ci dëkk bi boo waxee ñu ne la gëmal li nga gëm diine kenn du ci forcer kenn te forcer wuñu dañuy leeral ne jullit waru nii la war a mel yàlla dana ci quran ma kaana li muminin wala mumina ida qada allah wa rasuluhu amran an yakunu lahumul xiyara min amrihim warul jullit bu góor ak jullit bu jigéen yàlla ku yonent ne nii la ñuy tànn mbokk yi ñun suñu dund yàlla moo ko tracé ne nii nii la ñuy jaar nii amoo droit jaar fenn borom bi bu muy wax dane udxulu fi silmi kaafa yow amoo droit ne ah man kat su ma neexee ma weex su ma neexee ma ñuul waaw man kat dañ may takk waaye damay dem salon ba man kat dañ may takk après damay def réception man kat dañ may takk après déedéet yow amoo droit wax dara yow ni l'islam wax loolu nga war a wax jeex na waaye tey ñu bari ci ñun wax dëgg yàlla sunu dundin sunu dundin soppi nañ ko barki démb dama am takk kër ga am na ñu fi toog ci baas bi mun nañ ma seede sama benn jarbaat buñ doon takk ñu def mariage bi def yëpp ba mu jeex muy waaj a sëyi am ku ñëw déema ne ma gis nga fële ay sabar lañ fa dugal fële ay bool lañ fa dugal fële ay fecckat ñoo fa nekk yow la ñuy xaar rek boo wanee ginnaaw rek ñu commencé pour seet bi buy dem comme xam naa ne gars yi dañoo bëri doole te dañoo bëri ay pexe biñ julee timis rek ma daan ne ana basang yi ñu ne basang yaa ngi ni ma ne teg leen ñu teg ma ne dem leen ngeen indi kaamil ñu indi rek ma ne ana xale yi xale yëpp ñëw ku nekk ma jox la benn jukki ma ne ku nekk jàng ko 30 fois xam nga juzu am ma buñ koy jàng 30 fois ban ban heure lañ jëm ma ne 30 30 xale bu nekk jàngal 30 sa hizib 30 booy yi commencé ñu toog toog toog toog ba fecckat yi commencé gëmmentu waaw ma gis maire yi waroon tàcc commencé ñibbi ma ne acca bismillah baax na nañ def ñaan gi ñu def ñaan gi seet bi dugg ci oto bi ana waa dem yoonam ma xëy suba di leen ko nettali ñu ne ma yow maire yi ne ma yow bandi bu mag nga yow ndeke nii nga ñu def xale yi loolu laa ne man leen jàng leen ku nekk sa juzu jàng ko 30 fois.
band bu mag daay bu mag ah gis nga ñoom waaw. wallahi azim noonu laa leen def kaamil bi laa tas ci digg kër gi xale yi jàng alxuraan yi man leen am ku nekk ma jox ko ne la 30. bu kenn xam nag ku nekk dam la ko wax sa nopp 30. am na ci ñoo xam ne sax xamuñu woon mais biñ paree laa leen ko wax man leen foo bi laa fi doon bañ te yàlla dimbali nañu amul. voilà il faut ñu góorgóorlu muus ñaw xam ne gars yi seen pexe yi ñuy tëral suñ leen toppee ci islam la ñuy dañ ba set wecc kenn ci ñu du nekk jullit te su boobaa loolu defet bu mag a mag la mbokk yi maa ngi leen doon wax ne fukki tomb la waaye xam ngeen ne dana xat trop pour ci diggante tàkkusaan ak timis ñu def fi fukki tomb ba pare lu gën a doy waar mooy damay tafsiri s- euh, timis ba pare dama amaat beneen conférence guddi gi parcelle waaye li ma bëgg a wax rek mooy ñun ñëpp ñu ànd xam ne ay jullit la noo ngi góorgóorlu waaye nu ngi ñuy xeex te waxuma sax mboy mboy gi waaye yéen ñii ne da ngeen di dund laa ilaha illallah muhammad rasulullah delloo si waat leen seen xel seen bopp mbokk yi télévision yi ci seen biir kër yi rajo yi ci seen biir kër yi mbokk yi internet bi mbokk yi sàmm leen seen biir kër yi da ngeen am responsabilité yenn saa yi ma wax mbokk yi ma ne ñun amuñu droit def erreur xam nga ñun suñuy papa suñuy papa rëcc nañu waaye yow mii nga xam ne tey da ngaa gis sunna sa borom kër gis sunna yéen ñaar ngeen sëy ci sunna ngeen jur doom joo xam ne moom ci lan la judd ci sunna kooku est-ce que war na kiris karas te yow mi bàyyam rëcc nga ci loolu yow lu bon bon sax jot ngaa jaar ci ay ndànd foy foy moom ci sunna la judd ndey ak baay nga fekk ko moom moo gën a bëgg film boobu di daw ci télé bi nu mu tudd ah wiiri wiiri ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen man jàpp naa ne ab jullit buy dund laa ilaha illa muhammad rasulullah saalu télévision wiiri wiiri du ci feeñ man loolu laa gëm man wiiri wiiri musuma cee seetaan benn épisode maa ngi koy seedal sama borom di ko sant yow kazalik ma ko yëgee man xaw ma ñu koy joué xaw ma jigéen ñi xaw ma góor ñi musuma cee seetaan télé nii wiiri musuma ko musul am waaw duñ góorgóorlu yar sunu doom yi ñun dañu am liggéey ñun war nañu rus suñuy doom nekk ci télé yi gën ñoo xam film yi yaay yaa daj yaay kii mooy tës yaay kii mooy kii ya yaa ak moom ngeen nekk ci biir kër gi loolu war ngeen ko rus mbokk yi bu leen yaakaar ne kër yi muuraay dong moo leen fi bàyyi déedéet mbokk yi kër yi muuraay kese bàyyiwuñ fi bu ñu yaakaar ne kër yi mbokk yi xabdu kese moo nu fi bàyyi déedéet ñun dañu am responsabilité ci réew mi di Sénégal dañ fi war a samp la ilaha illallah muhammad rasulullah dañu am benn xale ci sunu jardin fële xale bi xaw na mag léegi Ibrahima Ngom la tudd du ma dañ di nettali loolu ci be- feet yi ñu toll feet yi nii nga xam ne 24 décembre ñëpp a ngi koy pare wax naa loolu léegi léegi fii ñu bëri fi nekk yar nañ ba teg ah yow duñ jënd ginaar jënd xanaa dama am ginaar yaa ngi dee de waa mais ginaar bu mu dee de boo ko reyee di nga layoog yàlla wallahi azim képp ku rendi sa ginaar 24 décembre ak 31 wallahi di nga taxaw ci kanam yàlla di nga wax yàlla lu tax nga rey ginaar bi lu leer laa leen wax xale boobu 24 décembre ñun suñu awa bare ngi nii suñu école le 25 décembre dañuy jàng xale bi xëy suba ñu sang ko ba pare solal ko yëre wékkal ko saakam mu def ko sàkk de nii génn ci buntu kër gi papa jàng ci étage bi ak seen magam yi ñu koy yuux naan ko Ibrahima da ngay jàngi wu yéen amu leen feet yéen amu leen feet mu daal di siggi ne leen ñun ay jullit lañu papa ji nee na tuuti ma jóge ci étage bi wadd nee na sama rongo ñi wadd rek ma daal di toogaat ci siis bi di ko xool muy daw naan leen ñun ay jullit lañu ñun ay jullit lañu ñun ay jullit lañu muy daw de naan leen ñun ay jullit lañu ñun ay ju voilà tarbiya boobu lañu war a def suñu doom yii suñu xale yi waaye sawaay ñu bëgg a jël suñu doom yi bëgg a topp yahud yu bon yi bëgg a topp nasaraan yi topp programme télé bi nga xam ne lépp kufru la suba ba ngoon loolu mbokk yi nañ ci bàyyi xel bu ñu nax suñu bopp bu ñu ñëw di jéem a sunnit sunnitlu di jullit jullitlu fekk duñu dara ci kanamu yàlla yàlla dañuy xool naan xoolal naafiq yu bon yi te jàng ngeen ne innal munafiqin fii darakil asfali min an naar te kan mooy naafiq mooy kuy wax na jullit la kooku mooy yi du yàlla waxul yéeféer ndax yéeféer moom benn aaya la baqara inna allazina kafaru sawaun alayhim anzartahum am lam tunziruhum la yuminun yàlla foofu la yem ak ñoom mu daal di jël naafiq yi kon nañ leen góorgóorlu xoolaat sunu kër yi xoolaat télévision bi xoolaat suñuy doom lu ñuy déglu lu ñuy surtout portable yi léegi léegi bi ñuy ñëw ndaw saa ngi koy wax ci rajo ci ci télé ci ci ci rajo bi whatsapp yaa ngi toj dëkk bi jigéen ñi groupe yi nangam nangam ab jullit na yar njabootam ci diine bu ñu am kersa ñun ay jullit lañ bu kenn am kersa am complexe ci ne man jullit la waaw addu alayha bi nawajis yonent bi loolu la ñu waxoon màtti leen ko ak seen i dëgëj fii waaye buñ fi nekkee di yaafus yaafuslu adduna raw ñu alaxira ñu ñëw ci sunu boroom ñu nag ñu doon wax ñëpp yàlla jël ñu yóbbu safara lan mooy sunu njëriñ waaw ñi nga doon wax ci koñ bi ah yow nii ngay solo ah yow ah yow fekk ñu fekk la biir safara na loo fi def looy wax fekk yow yaa def càggante gi maa ngi gàttal kàddu gi jox mbokk yi li ci des ñu eggali ko beneen partie bi yéen yéen a ko moom asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu
waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh